dajale woon mooy dañoo waxoon ci suñu budget ren comme président Macky Sall dafa année sociale def nañ bërki dem visite médicale lu mat junniy nit ñu xool seen wér gu bi mu amee tamit tey jii ñu waxoon ci suñu budget dañuy yóbbu ñaari nit mag ñaari nit mag nag ñu ko defee ci rajo Sor Fatim Gadiaga moo génnoon bokk coalition Benno Bokk Yaakaar Seydina Faye bokk ci bokk gis yàlla dogal nañu jot nañ ku nekk ñu la enveloppe pour un million pour nga war a dem siyaare Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaanal commune wala buñ ko mënee grâce à équipe municipale bi ñu àndal parce que bu ñu fayee woon xaalis commune bi ci fonds propre ñu mën a dajale ba yóbbu ay màkk parce que am na collectivité locale yoo xam ne sax vraiment pour ñu fay seen salaire da leen di jafe te ñun vraiment suñu masse salariale euh, xaw na am importance mais ñu koy gérer yaakaar naa ni tirage boobu image yaa ngi fi leer na waaye nag leen rek lañ ciy xaw a naqari mooy retard bi nga xam ni am na ci génn billet yi waaye sax du retard situation nationale bi ni ñuy aje moo changé daaw da nga daan wori diggante korité ak tabaski fi nga daan bindu pour dem màkk mais ren jii dañoo changé système bi mois de janvier février ñu ne nit ñi dañuy bindu màkk pour tëj ko loolu nag ñun dañuy voté suñu budget donné boobu xamuñu ko te nag collectivité locale mënoo approuver sa budget euh, mois de février wala mars bëgg nag génne yenn dépenses yi nga koy tëb di ko génne te amoon yeneen dépense prioritaire mais bi ñu dajalee dajalee ba am ko tey jii génne nañu comme ni ñu ko waxee woon kenn ku nekk dañ lay jox trois millions pour sa billet pour mag lii nag bu ñu ko dee def tamit président Macky Sall ci vision ren dañu année sociale lay def année sociale nag. ñun commencé woon nañ ci bu yàgg waaye nag président Macky Sall da ko gën a dëggal ndax su demee ba ni euh, année 2018 année sociale la ñun ci local yi ñu ñoo ko ci war a gën a jàppale ci noonu euh, def nañ bërki démb euh, visite médical boo xam ni amoon nañu ay médecins ak spécialistes yu fi nekk samedi ak dimanche ONG bi ñuy wax Samat moo ko jiite woon ak ñoom docteur baabu def nañ fi ñaari fan yoo xam ne vraiment consulté nañ fi lu mat mille personnes tey jii tamit bu ñu wootee waatee cérémonie bu mel nii war a def ñaari remise billet pour la Mecque kon donc loolu c'est social la bokk la nag gàmmu yéeg ngénte yeeg ak tiis yi nga xam ne tiisu naqa la di fi xew yëpp collectivité locale bi ci taxaw lii nag bokkul ak projet yi nga xam ni ñun ñu ngi koy def ci commune bi kon donc loolu duñ ci ñëw ndax euh, lu ni fàng kenn du ko jeex te li ñu def ci commune yi yaakaar naa conseil yi toog ak responsable yi xam nañ ko ak chef de village ci loolu nag ñi ngi remercier tey jii ñi fi ndeew ñëpp ndax sama deuxième adjoint mi ngi toog ak association des chefs de village ak fédération daayira Tijaan Baye Maguette Sène jiite leen kon donc tey jii kontaan nañu trop ak association des chefs de village léegi nag cérémonie bi ci la ñuy dem mooy première point bi ñu fi dajale maanaam Baye Maguette Sène mooy joxe benn enveloppe bi baneen bi ñu xool association des chefs de village wala bàyyi ma Oustaz Malick Faye joxe ko ndax tey mbirum diine la waa diine yi la ñuy sagal waaye nag ku mënta dem ren may nañ ba déwén nga dem waaye boo demul déwén tamit xaalis bi ak ñu koy indiwaatal waaye mënut a tabax mënut a ubbi bitik mënut dugg ci beneen projet parce que màkkaa tax ñu génn ko ku mënta dem ren nag mën la may sax ba déwén nga bind waat dem waaye ku yàlla defal sens tamit nga mën a dem ren teg ci imaam yi teg ci conseillers yi teg ci sëriñ yi ñu jégal ma teg ci invité yi nga xam ne dañoo ñëw fekke cérémonie bii ah cérémonie bi ñu dajale tey nag comme ni ko maire waxee moom mi ma jiitu jël kàddu dafa sof ci li nga xam ni proposition la bu mu fi indi woon conseillers yi d'accord ci gunge ko ci ah ñu def tirage au sort bi ñu defee tirage au sort yàlla dogal sama tur génn ci góor ñi tur Fatim génn ci jigéen ñi mu nekk loo xam ni bañ ko defeek léegi yàgg na ah loola dëgg di dox ba tey jii mu nekk euh, billet màkk ku nekk xam na ni it màkk dafa am heure euh, waajal ko it dafa am heure te comme mbir mi ci tirage au sort rek la yemoon ñun yàlla dogal na ah doxuñu woon tàggoo defuñu it formalité ba heure bii kon li wax rek nii bu mën la nekk ren ñu may nañ leen ba déwén loolu laa bëgg euh, ñëpp dégg ko euh, ndax euh, damay bañ a ah, ñu génn ñu ni jox nañ ko billet de waaye demul te ku nekk xam na ni li chance bu ñëw la rek waaye dem màkk sax du priorité ci ñun donc loolu la mooy li nga xam ni bëggoon naa ko wax ñëpp dégg ko euh, di sant ñëpp nag di sant ñëpp surtout euh, maire ak conseil yi nga xam ni ñoo nekk fii di liggéey ñu ngi leen di sant nekkin bi rafet na dara ñaaw ci loolu ñu ngi ciy sant ñëpp di ci gërëm ñépp di jéggalu di balu ak ñëpp ak jërë ngeen jëf. ko ci coalition Benno Bokk Yaakaar di nuyu kilifa diine yi fi nekk ak sama kii conseil yi fi ne maa ngi leen di nuyu di nuyu waa presse bi di leen sant ñoom di leen gërëm di sant monsieur le maire di ko ñaanal yàlla lu mu man ren yàlla na ren man déwén lu ko ëpp yàlla bàyyi ko suñu kanam lu yàgg lool ndax xam naa lu nekkee suñu kanam moom bu fi yàggee lu nu bëgg dina nu ko am ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ñaanal Macky Sall bi nga xam ne moo ko kii moo ko fi teg moom itam ñu ñaanal ko mu am deuxième mandat bu amee deuxième mandat du ñu ñàkk dara waaw ndax gis nañu mbay mi ni mu demee te moom moo si teg loxo bu ci tegul woon loxo gis na ni mu daa daa demee fii mais ñu ngi koy ñaanal yàlla kon li sëy naa wax rek xam naa dem bi moom ren moom du yomb ndax boo ko gisee day bëgg a wees. waaw waaye bu mënta dem ren ñoo ngi ñaan di sabablu bëgg a siyaar yonent bi yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam déwén bu mënta am ren itam ñu ngi koy ñaan déwén pour mu yombalal nu ko te bu amee yal na gën si ñun waaw wasalaam. bi mu gañee am na kàddu yu ñu ko waxoon ne woon nañ ko góor góorgóorlu ci population bii sa kemtalaayu kàttan loo mën def ko ci ñoom bul tëju kenn bul daw kenn boo ko defee bu ëllëgee boo leen soxlawaatee mu yomb leen lañ ko waxoon nag mel na ni mu ngi ci ndax ñun guleet tey jii ñu mës a fekkee mairie bu yëkkati ay billets Makka di ko joxe surtout ci commune yi man tey laa ko jëkk a fekke kon ñu ngi ko ciy gërëm di ko ci sant ñi ñu jox teraanga ji itam li ñu wax wax nañ dëgg as gor boo ko teralee war na laa sant waaye war naa wax dëgg nag ndax kenn ku nekk xam nga ne période bii ñu toll 3 millions moom demu ci makka privé yi yóbbuwaate fi ñu toll nii ku ci feesul mënoo ko jox 3 millions mu yóbbu la kon li ngeen mën a def ndigal la nag yéen ay xool waaye li ngeen li ñu yaakaar ne moo leen gën a mën a arrangé jàpp leen ni mbir mi doog woote yàlla la dogale yàlla ci lay dox xat na ba xat jàpp leen ko it da ñaan yàlla ñu fekkee déwén déwén yàggul de bu ñu ko fekkee ngeen teel a waaj ci seen teeyug bakkan dem ci seen teeyug bàkkan dem ci jàmm dellu si ci jàmm maire yow it li ñu lay sant mooy lañ la doon sant dem yaa ngi wax ñu mu wateel Macky sàll deuxième mandat lii nga jàpp lii nga def nii nag ci yombalal ko deuxième màndaa la bokk Macky Sall jot fii yaa fi nekk boo jëflanteeg nit ñi lu ñu la jàppalee ñu jàppalee la boo jëflantewul ak nit ñi lu ñu la jàppalee duñu la jàppalee wax ji lu mu bari bari nañ di wax dëgg rek as gor daa war a wax dëgg ngir yàlla tax lii nga taxawee nag ñun kontaan nañ ci lool di ñaan nag nit ñi waaye waaye ñun tam nañ leen jéem a gore nag góor góorgóorlu ba bu ñu eggaatee ci wote bi ñu joxaat ko suñuy kart ndax yàlla yokk ko doole bu ko yàlla yokkee doole jombul mu defaat lu ëpp lii parce que genn gor teral teral nga gor yépp genn gor goo fi toroxal gor yépp nga toroxal kon teraanga ji ñun ñépp tey ji ñoo ko bokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi